tey mooy tey senegal ak àdduna yépp ñoo dundandoo ñoo gisandoo li xew fii ci département de Mbour rawatina ci commune de Joal Fadiouth ñëw nañu di def suñu nemmeeku tour ni ko yëgle woon mooy jàpp nañ ni en tant que acteur politique rawatina koo xam ne namm ngaa jiite réew war nañoo dem dajeeg Sénégal yëpp kenn ku ne nag li gën ci ndaje bi mooy ñu fekk la fa nga dëkk mën a waxtaan ak yow ci contexte bi nga xam ne mooy contexte bi ngay dund door nañu bésu tey bi doore ko njaga ñaaw ndax xam ngeen ni dañ fa am dëj suñu rakk suñu mbokk parti Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne magam wàññeeku na fi ñetti fan ci gannaaw yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko jóge ñaga ñaaw ñëw nag ci commune de Guédiène ñëw fa ñu dalal ñu fa dalal bu mucc ayib waa dëkk bi yëpp génn ñu waxtaan ak ñoom déglu leen ci seeni mbëbët ak seeni jàmbat waxtaan ak ñoom it ci suñu gis-gis jóge foofu woyale tournée bi dem jiwaalo waaye bi ñu eggee jiwaalo la jafe-jafe yi commencé ndax fekk nañ fa ci takk der loo xam ne jéggi na dayoo te ñun ñëpp ñu xam ni takk der yooyu la ci ëpp tey lañu jóge ndakaaru ñu mobiliser leen andi leen fii ci département de Mbour ngir suñu tournée bi ñu ñëwee jiwaalo li ñu njëkk a def mooy dem seeti imam imam bu dëkk ba saafonteeg moom nuyonteeg moom waxtaan ak moom ba ñu jógee foofu ñu dem seeti ñu dem kër labbe seeti monsieur le dem nemmeeku njabootam waaye bi ñu nekkee ci biir salon wu euh, euh, monsieur le curé ca la capitaine de gendarmerie bi ak ki toftalu ci moom ñëw fekk ñu ci biir salon ne ñu daf ñoo soxla ma ne ko capitaine génnal nga dem xaar ci biti ndax li ngay def du teggin ci république bi ñu nekk te yow biir na la ni bari na kër kilifa diina goo xam ne su doon foofu laa nekk sa fit mayu la nga ñëw fekk ma ci biir salon am naan maa soxla donc boo ma soxlee demal nga taxaw ci biti ba ma pare li may def bu ma génnee dinaa wax ak yow bi ñu paree génn wéet ak moom mu ne moom dafa am réquisition préfet moo xam ne dañ ko ne man awma sañ-sañ ci li ma li may def ñu ne ko ah war ñu réquisition bi comme dama ànd ak maître Tall te muy avocat bokk ci département bi ñu laaj ko réquisition bi mu génne réquisition bi won ñu préfet bind ci ni lim leen sant mooy nañu doxal ordre nañ ko rétablir mooy nañu fexe ba am maintien de l'ordre d'abord mooy fexe ba euh, dal ñu fexe ba dal am su loolu amul it nañ ko rétablir rétablir l'ordre mooy su dee dem na ba dal amul nañu delloo si dal gi ne leen nag loolu mu leen sant mu ngi daw bis ni ki tey nga xam ne moom laa commencé sama tournée bi ba keroog ma koy jeexal incha allah muy le 23 ma ne ko capitaine man lii gisuma lu ko fi jar ndax man gisuma lu fi lu fi de ordre bi ma ñëwee dëggu ci dëkk bi ba léegi imam laa seeti jóge ci imam ñëw seeti Euh, monsieur le curé te su ma jógee fii euh, ñu toogal fii xalif général de Mourides lay seeti bu ma jógee foofu am na ay mbokk yu nekk fi ma seeti leen bu ma ci paree dinaa dem fële ca quai de bi ci port bu man gis ma fi andi perturbation mu ne ma waaw attroupement dafa am fii ci buntu jàngu bi ma ne ko su attroupement mi daanaka kenn dégguma mu woo kenn ne ko génnal yàllaa def nag ma ne ko yow capitaine su ma ñëwoon seet si la sa kër mun naa ñëw gaare oto dugg man dong waaye balaa may génn attroupement dina am foofu waa koñ bi bu ñu yéegee ni Ousmane sonkoo ngi fi ñu bari dinañ génn ñëw taxaw loolu nag yàllaa ko def mënuma ci dara yàllaa ko def dama ko koy sante ndax du sama mérite man soxlawu ma organiser ay film ak ay théâtre ci VDN bi di génne ay nit taxaw pour ñu waxal ma yàllaa ma may loolu su ma génnoon taxaw fii léegi ci buntu kër gi koñ bi fees dell dama koy sante yàlla waaye man wowuma kenn ne ko génnal ma ne ko démb bi may def sama live ndakaar dégg nga bi may wax ak nit ñi nee naa leen ñëw ma meeting ñëw ma campagne électorale defuma karawaan waaye nag su ma duggee cib dëkk waa dëkk ba yépp daje ci pénc bi ne dañ may teeru loolu moom gannaaw yàlla kenn mënu ci dara ñu génnee ci noonu jóge ci kiire bi di dem ci euh, euh, balaa ñuy dem d'ailleurs ci ñi toogal foofu communauté murit ñi ngi doon jàdd pour seeti euh, dégg nga maam quartier traditionnel Joal bi ñoom ñoo ne woon nañu ñëw seet si leen ci fi nga xam ne mooy fi ñuy daje def grand place yooyu sax yu ci bari gis ngeen ko ci live bi ñu dem foofu nuyonteeg ñoom gis lu toll lu kenn xamul ci ay alkaati ci biir dëkk bi seeni camion seeni pick-up lu nekk ñu jëlee ko ndakaaru andi waaye bi ñu génnee foofu ba dem ci troisième étape bi wala quatrième étape bi dugg ci biir jumaa ji di nuyante kilifa ya ci lañu commencé ñoom di sànni ay lacrymogène ci biti muy lu ñaawa ñaawa ñaaw ñu génn continuer tuuti ndax dama am goro gu dëkk foofu ci kaw tali bi mu wàcc dugg di nuyu samay goro ñu commencé di sànni lacrymogène yi ci buntu kër ga lii nag niñ koy tuddee mooy intimidation la ko ñëpp tuddee waaye man jàpp ma ni intimidation la li ma jàpp mooy ki leen yebal ñoom ñépp muy président Macky Sall tiit na tiitaange goo xam ne jaaxle na jaaxle goo xam ne ñàkk naa gëm yàlla ñàkk gëm goo xam ne parce que lu jeex jeex na loolu yàlla bi ko yàlla tuddee ni moom moom la yàlla da ko yombalal yépp waaye bu yàlla tuddee ni jeex na màndarga yi day feeñ ne fang waaye moom ñàkk a gëmadi yàlla gi mu ñàkk gëm yàlla moo tax mu jàpp ni war naa mën a forcer mbir ba jàpp na ni Ousmane Sonko warul yëngatu ci réew mi seen stratégie ñoom mooy fexe ba kuy politique rek na nga toog ndakaaru bis bu ne ñu dugal la ci ay débat yu ñàkk fulla yu amul solo ñu jël ko amplifier ko par voie médiatique ñu bàyyi li nga xam ne mooy fulla senegal nekk ci débat yoo xam ne am diw andil diw diw wax na lii diw for na lale diw saaga na kii noonu nag lañuy ñuy piéger homme politique yi ba ñu bàyyi farata gi farata gi kuy kuy homme politique fi toll nii mooy dem dajeek askan wi rawatina ñun ñi nga xam ne biir nañu boo ubbee xolu Sénégalais yi ñoo ngi ci biir fu ñu génn yi woon ñu cofeel ak mbëggeel waaye surtout yaakaar gu ñu am ci ñun ak la ñuy liggéey moo tax piège boobu bulle boobu nga xam ne dañ koy alimenté jaarale ko ci waxu média réseaux sociaux ñun dañ koy yëkkati teg ko fële dellu si ci réalité bi te réalité bi mooy feeñu jóge ci àll ba fekk fa sénégalais yi saafoonteeg ñoom ñu wax ñu seeni jafe-jafe ci suuf suñuy jaay seen i jafe-jafe ci ñàkk liggéey seen i jafe-jafe ci seen i pajukaay seen i école seen i jafe-jafe ci seen ji seen seen seen seen récolte yi nga xam ne jaaxle nañ ndax dañ ko mën a jaay am déet loolu mooy réalité Sénégal te ci réalité boobu la ñu fas yéene nekk fukki weer yi di ñëw may wax nag Macky Sall pour mu dégg ko bu baax ndax man du ma wax ak ministre am ab suq la rek bu ñuy yónni du ma wax ak préfet dañ koo def rek mu def duma wax ak ñii nga xam ne ndeysaan ñoo ci gën a sonn alkaat yi ndax li ma gis tey ci gendarme fii ci Joal te li ci ëpp jóge ndakaaru bi ñuy dugg mbuur li ma gis tey ci gémi ñu rangale seeni camion te li ci ëpp jóge ndakaaru ñu leen di sonnal di leen fanaanloo ci mbedd mi waaye baax na ci tournée ndax gëm naa ni nag maa ngi doog a am kaaraange ndax lii ma gis nii président de la république sax duñ ko jalonel noonu buy génn waaye may wax ki leen yebal ñoom ñépp muy Macky Sall ma fàttali ko ni bi ñu dooree jàkkaarloo moom ak man ba tey xam na ni su amee ku ragal moroom moom moo ma ragal moom Macky Sall xam na ni lu toll ni tarfata ayn ci ragal lu jëm ci moom man awma ko bu doon desee na sago ak xel dina xool neneen lu muy doxale moom moo yor nguur yor larme yor police yor gendarmerie yor justice te su tëddee ku ko yeewoon trois heures du matin ko Ousmane Sonko mu yuux àll bi waaye waaye awma lu toll ni tarfata ayn ci ragal ko malgré li mu yor yëpp ma koy gaaral nag di ko garantir ni ko bu soobee yàlla nemmeeku tuur bii ñu door niñ ko commencé lañ koy wéyalee nu mu gën a calmé bu ñu xëyee ëllëg dañuy continuer dem fi ñu war a dem muy Malicounda muy beneen dëkk muy beneen dëkk dinañu continuer suñu nemmeeku tuur ndax ñun kenn mënuñoo intimider bu dee nag nii lañ ko bëgg a doxalee lañu andi ci armée gendarmerie boobu andi ko ci police indi ko ci renseignement généraux loolu lépp nañu topp fu ñu dem rek waaye du tee nii ma ko commencé ñu soobee kii bind dinañ ko yeggalee noonu may wax ak nag patriote yépp na seen xel dal na seen xel dal nañu continuer la ñuy liggéey ñoom nañu jël seen responsabilité ci provocation yi ñuy def te àdduna yépp gis ko lu ci am rek ñëpp dinañ ko gis may dellu nag di waxtaan ak sénégalais yépp kilifa yi citoyen ordinaire ak ku munti doon tooñ baa ngi bëgg a ëpp de te ñëpp ngi koy gis ci la ñuy xëy ci lañuy ñuy gont moom Macky Sall am na sañ-sañ saa yu ko neexee mu taal otoom dem fu ko neex ci réew mi dajale nit ñi jox leen xaalis pour ñu yooxu turam waaye ñun amuñu sañ-sañ génn ci réew mi dem dajeeg sénégalais yi ñu leen jox xaalis te ñu dem par yàllaa ko defee noonu sénégalais yëpp génn ñu saafoonteeg ñoom wax ak ñoom loolu du am de dinañu continuer suñu tournée incha allah nii ñu ko doxalee moom gendarmerie ki ko jiite fii nee na man amuma droit am convoi waaw kan moo mën a gis Ousmane Sonko fii mu tollu ci réew mi ne mu ngi génn moom dong di dawal otoom walla moom ak chauffeur am dama ngay dem tournée dëkk bi bis bu ne convoi am fi moo xam sëy bu ñuy takk moo xam ñuy dem sport moo xam leneen ak leneen moom moom bis bu ne mu def convoi waxuma convoi politique nag waxuma convoi boo xam ne état bi ko tax a jóg waaye convoi politique bis mu ne mu def ko ay ñoñam bis bu ne ñu def convoi dinañ def convoi ma ànd ak ñi ma war a ànd ak yépp ñu def suñuy oto sama sécurité mat sëkk sama communication nekk ci ñu dem nemmeeku ñi ñu war a nemmeeku lii nag lañu bëggoon waxtaan tuuti ak Sénégalais yi te gën a dalal xelu ñi nga xam ne am nañu jeexi jaaxa àdduna dafa am fu muy tollu ku nangu nooteel ak jaay doole luñ la tegati dagan na dañoo nekk ci réew bu tudd Sénégal am ay charte moom mii di wax tey diggante 2009 ak 2011 dafa wër Sénégal yépp président Ablaye Wade mosu koo tere ne ko doo dem doo dugg dëkk sàngam te musul dem moom dong da doon ànd ak ay ñoñam ñu dem kon suñu nangoo tey mu imposer ñu lii bu yóbboo ñu arrêté li ñuy liggéey li yëngu nag li ko yëngale ko ëpp doole mooy tiitaange bi nekk ci ñoom jamono jii élection yi ñu génn ñëpp gis nañu réewu taax yépp wala dëkku taax yépp dañ koo ñàkk boo gisee bi ma ñëwee Mbour dama ne man Mbour commune taxumaa jóg waaye dëkk dëkkaan yi ci biir ñoom a tax a jóg ndax Mbour commune ñoo ko gañe woon ci élection bi passé donte ñoom ñoo gañe département yi fu ñu gañe département rek ñun ñoo gañe commune ba moo tax man dëkk dëkkaan yooyu moom ma intéressé te kenn mënumaa tere dem ci dëkk dëkkaan yooyu kon mbokki Sénégal dañoo bëgg ku am kàddu war a mën a wax ak Macky Sall ne ko li mu nekkee du dëgg na waxtaan ak moom ndax moom mooy taal fitna ci réew mi bi mu fi nekkee ba léegi fitna ci fitna la tegu ku am kàddu mën ko koo wax na téye loxoom ndax xale yi ma gis nii ragaluñu ko de su génne woon euh, un million de de alkaati fii xale yi ragaluñu leen sànni nañ tey seen lacrymogène benn xale bougéwul fi mu taxaw loolu nag bu yàggee ci fitna lay jur fitna lay jur ci dëkk bi kenn mënuma imposer ma dem toog ndakaaru naan maa ngi xaar 2024 damay def samay tournée citoyen la am naa droit circuler fépp ci Sénégal kon nañu waxante dëgg su coow amee de nañu seet kan moo tooñ ñu jàpp ci loxoom ne ko tegal ci suuf ndax li ngay def baaxul ci réew mi bu ko mënul nag ñun ñépp nag du question par parloo de ñun ñépp ñoo war a ànd mànkoo jàkkaarloog moom ndax lii su yee nag lañu amoon ci démocratie Sénégal te li muy wund mooy liberté bi sénégalais bu nekk am dem ak dikk dem nemmeeku ku la neex loolu la Macky Sall bëgg dakkal ci réew mi ndax dinañ ko nangu ndax di ngeen ko nangu loolu mooy la seule question man nag en ce qui me xalaatuma koo nangu moo tax ma ne leen bu soobee yàlla ëllëg dinañu wéyal nemmeeku tuur bi te bu dee Macky Sall mën na dëgg dëgg dëgg dëgg 46 départements yi 553 communes yi na waajal ay camion mag ay dragon mag ay pick mag fu ma dem nañ ci topp rek ba ñu xam fu muy mujje ñu ngi leen di gërëm di leen sant